nga gisee euh, d'abord le, le, le gouvernement euh, ensuite cette histoire de de reniement ñu leen di ñuy ñuy accuser euh, aujourd'hui l'actuel régime euh, dañoo yàgg a clamé ne certains postes dinañ ko def dinañ ko soumettre euh, à, à à compétition euh, soumettre ko à des à des appels d'offres mercredi dernier après le conseil des ministres vers 23 heures 18 nominations euh, sont, sont, sont faites et puis on a range aux oubliettes cette histoire de d'appel d'offres parce que appel d'offres boobu dafa amul woon sens c'est que mooy li wax ni la que parfois boo nekk opposant di wax di diggaate dafa yomb trop mais la réalité lay rattrapé yow di nga nangu ñi nga xam ne da ànd ak ñoom ngeen bokk combat bi ah nga bàyyi leen fi dem jëli ñeneen. ñoom ñu def la nga xamee ne yow si boobu sax ñoom la ñu def defoo ko. wallaay ngeen toog tey yow nga fal sa bopp ba pare jox sa bopp ñoom doo leen jox mais duñ ko seetaan. boo fa nekkoon doo ko nangu. mais boo fa nekkoon du ma ko nangu. mais mais man ñi leen di man pour man sax ñi leen di accuser de remane. Euh, non mais non li tax ñu leen di accuser de reniement mooy li ñu ñoom dafa dëppoo li ñu def dafa dëppoo ak li ñu waxoon mais la ñu waxoon moo waxuwul moo jaaduwul. ils sont rattrapés par la réalité. du pouvoir ils sont rattrapés par la réalité. loolu mooy moo tax ñu ci bari ils seront rattrapés par la réalité parce que boo nekkee ak fugg bi ak euh, peut-être ku ma wax sax parce que boo nee populiste day xaw a péjoratif mais di dige lépp. doo du lépp nga man te réalité daf lay dab maintenant nag sama gars yi dañoo desee mbokk tuuti. Hmm. non communication dafa des ci seen boor xam nga lan moo tax bu ñu dikkee nii xëy nommé fii ay nit da koy préparé boo ñëwee nga ni gars yi eh écoutez man maa leen waxoon dafa def appel à candidature jógaguma ci mais pour appel à candidature dafa am ay procédures yooyu tëral. il faut nga def ay conditions de sélection il faut nga def cahier ay commission et cetera kon nag léegi damay nommer ñi en attendant damay pourvoir poste yi mais bu ñu bu dossier yi yëpp paree ba ñu mën def condition de sélection yi ma sélectionné xam nga loolu bu ñu ko waxee kenn du leen ci sikk kenn du leen ci sikk parce que car appel à candidature doo tëb tëb damay def appel à candidature dafa ngay teg règle yi teg critères yi teg critères d'évaluation yi. ça pouvait prendre trois six mois ça peut prendre plusieurs mois donc en attendant ak ñoom. parce que boo xoolee appel à candidature dafi am ba pare CESTI bu ñu koy pourvoir directeur dañu def appel à candidature mm-hmm. recteur université yi bu ñu koy def dañu koy def appel à candidature mm-hmm. président collège ARTP par exemple fal dañuy def appel à candidature ay nit sur la base d'une short list l'autorité décider décider choisir quelqu'un kon loolu am na fi ay procédures yu fi am mais du ci boo bëggee tey nga def appel à candidature euh, douane wala impôt wala yooyu mën na nekk parce que am na réew yu koy def mais da nga koy étudier da nga koy teg ci day def am texte bu koy bu koy organiser ni kat bu ñu def appel à candidature pour poste directeur général des douanes profil bi nit ñuy am bii la war a doon ñi mën a compétir nii la ñuy compétir expérience bii la ñuy am ñi koy évaluer commission d'évaluation bi ñii ñii ñii ciy nekk ak nii lay demee mais loolu yëpp tracé goo ci dara bind goo ci dara kon mën a goo ko appliquer encore une fois loolu xëy na buntu loon pour ñu génn ci mais même loolu génnewu leen ci appel à candidature bi mënut a nekk parce que ñi àndoon ak ñoom di xeex di wut nguur gi ba jot ko dañoo bëgg ñoom it. mais justement est-ce que est-ce que duñu taxaw ñu assumer cette nouvelle réalité parce que quand ils ont parlé d'appel à candidature la base ça ça ça sa ça grognait ah. et da ngay gis da ngay ils ont une réunion samedi passé. oui.